am Queen ba ba sa événement bi fii lay am am rek événement bi ah ba fii lay am parce que bu ñu wooree ba noppi mhm. le 13 juin incha allah dañu ànd ak suñu yaay faatu Guéwal Diouf moom dafay fêter également anniversaire am le 13 juin fële ca King Fat Palace ren dîner de gala la koy koy def donc mhm. euh, dina nekk affaire bu mag incha allah mu ànd ceeg la chaîne leader ba tey euh, ñu ànd ak le 5 juin Djibi Dramé muy euh, nuit du bazar bi nga xamee ni chaque anne moom daf koy def donc at bi daf ci ànd la chaîne ba tey muy la Sen xaar leen événement yooyu yëpp ak yenn événement yi nga xamee ni xam naa ni bu subaa dinañ ko gën a détaillé bu ko defee mu gën a leer ci nopp askan wi léegi nag dafa mel ni war nañoo mën a ànd ak Jeanne ci wàllum people Jean nga. mais moom Myriam mënu def comme par exemple artistes yi ni ñuy def. comme bu ñu demee j'ai première partie dem simee ko def. waaw <laughs> tamit. <laughs> boo ko sponsorisé rek ayca ñu dem. waaw Mouhamed ñu tàmbali people bi rek ki nga xamante ne moo di ex mi Sénégal di Ndeye Astou Sall moom nag mu mel ni alxayri gi dina jëm ci këram en tout cas waa Dakar 221 comme ñoo ko wax. ñu uh-huh. nekk ki ko war a takk le 1 mars mu ngi wuyoo ci turu WS Mouhamed. WS moom lan la xanaa ki koy takk. ah loolu daal la looy initial bi. WS moom xanaa Waly laa ci xam de. Waly Seck moom nag le premier mars soreetul nag. vraiment euh, du dimanche. ah dimanche de la. ah. vraiment soreetul. wulli tamit wulli. wulli ma. wuli nu mu sant wuli wuli siin waaw wuli siin wuli siin waaw mun na nekk wuli siin mais Wally Seck moom defe naa ne jege na ko Seck bu dee da nga doon kii xale bi moom ñu ngi xaar le premier rek ajo <laughs> ñu dem ñu ngi indi ba tey ki nga xamante ne moo di Bijou Ngoné moom nag du benn du ñaar bu ñu wax ni ko jógee na fële ne ci Faramaren musique moom nag daal dinay génn nii yooyu lay fee ni ko génnewul benn yoon fi nga xam ne moo di Faramaren musique ak actionnaire la ci boobu les structures waaye tam ñu gisoon ko ci concert u Sidi Diop euh, ci euh, Grand Théâtre bi passé moom mu yëgle ni que rek dañ koo mare woon boobu les concerts et kii lay di Kandji moo ko ko mare woon et avant muy dem ci concert boobu avisé woon na nga xamante ne moo di Wally Seck ñu yëgal ba tey rek ni que Bijou actuellement mu ngi Bruxelles pour une formation en technologie d'après Diaspora 221 ayca kon buy liggéey Faramareen warul dem ci soirée keneen. dañ ko faa gisoon rek mu mel lu ñaaw ñu def dafa am ay ñagas ñagas ak waaye. mais ak kii amuñu benn problème. artistes benn problème seen biir de. ah et kuy liggéey ci structure Wally war naa mën a dem feneen. effectivement ñaaw ci ñu dem. àddina yàggul. Samba mii mën naa ménager <laughs> <laughs> ji suba Youssou Ndour bi Samba ménager Queenbees <laughs> bi xanaa xamoon ne mën naa ménager ji suba Youssou Ndour maa la wax li moom daal yu ëpp yi papa Youssou image boobu ñu ko tegaloon nag dina ñëw léegi image bi dina ñëw léegi ay ñu dem bu mel ni que Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye aurait des ambitions politiques en tout cas ci micro diaspora 221 le lion de Guédiawaye s'est confié nee moom mënul bàyyi lutte benn yoon ndax bés bu retraité ñi nga xamante ne moo di jeune yi bëgg a jóg waaye itam bàyyiwul benn yoon li nga xam ne moo di politique bu vidéo bi disponible ñu tegal ñu ko ñu seetaan bu ma bàyyee làmb rek du ma góor parce que tey lépp lu ma am ci àdduna ak fu ma mën a dem ci am àdduna ginnaaw yàlla yoon ci bi làmb moo ma ko may te nag ça tout mën yàlla mën na def lu ne ma moom mun ko def quoi bu ma bàyyee làmb bu nu déggee lu ne mën nga nekk politicien pourquoi pas nekk maire golf. bon mën mooy gën a ça veut dire tout. man mun naa mun naa nekk kon ni nga wax. politicien mun naa nekk tey yor sama entreprise. Mhm. mun naa tey yor école de lutte di former xale yi. allah moom moom mairie Guédiawaye bee ko ñaan. am na fit nag ba pare teg ci naan euh, ñi jàngul ak ñi jàng ak ñëpp jamono ji ñëpp benn lañ. moom jàngul rek mën naa gérer. mais looloo xew ci réew mi nag. mais il a raison parce que loolu noonu la réew mi di doxee. noonu la réew mi di doxee ba tax ah, internet yi bàyyi ñu ko ci nag. Ah. ñun Guédiawaye duñ ko jox ku jàng. Guédiawaye fi mu ne nii benn maire la ñu am. <laughs> muy Aliou Sall. Aliou Sall lan foo rek. Ahmed Aïdara mi ci kër gi. <laughs> waaw Ahmed Aïdara ay suñu maire. ñun waa Guédiawaye. <laughs> Ahmed Aïdara mooy suñu maire ñun waa ah, Guédiawaye waaw donc moom la ñuy xaar mu falu ñu ah? si bu bu faloo man dinaa nekk dinaa yor dinaa nekk chargé de communication bu mairie bi. Mhm. mais nañu xool suñu mairie bi nu ñuy def moom parce que ñu ngi jaay mairie Guédiawaye bi nii de. ay Mouhamed nag. waaw nañ dem <laughs> nañ dem. ñu daal di dugg ki nga xam ne moo di Jams di ancienne rappeur bu rappeuse bu France moom nag euh, depuis sa reconversion moom dafa daal di consacré àddinaam yépp ci li nga xam ne moo di la religion mhm. moom nag depuis deux ans mu ngay jaamante fi nga xamante ne moo di Médine euh, di waaj di ubbi benn agence bi nga xamante ne rek c'est pour le tourisme religieux moom euh, Jams muy xamal ni rek ni que moom fii léeg le mois de mars boobu les agence dina daal di débuté mu ko tuddee moom Jams ah. macha jam si de moom léegi wàllum diine gi rek a ko ñor pèlerinage ak yu ni mel yow noo koy gisee yow. waaw lu baax la donc euh, xam nga diine moom. am na ñi nga xam ne dañ ci nekk di ko fësal uh-huh. ku nekk ni nga koy dundee rek nee naa la foi moom ci nit lay nekk dafay intérieur uh-huh. soit nga wone ko soit nga koy doxee ci biir lépp daal yàlla gis na lépp uh-huh. nga koy doxee nga koy waxee mais aussi man dama ko ci gën a encouragé parce que Jams aussi c'était une rappeuse bi nga xamante ne bi muy bàyyi rap di dugg si affaire yi mi ngi woon ci ci digg ndëndama ah. donc dafa sacrifier lépp dugg ci elle a ses raisons tey en tout cas on l'encourage diine moom yow amoo beneen bu lay bàyyi loo musique mooy dëgg ah. ambition bu lay bàyyiloo musique. <laughs> musique moom dama koy dinaa ko bàyyi moom incha allah ambition yi dinañ ko dévoiler. Ah. waaw waaw. dégg na mairie booy laaj why not mairie <laughs> moom. <laughs> war na mën a nekk de mairie Ndakaaru Ndiaye dégg naa moom ngay tuuti na ci man. ayca <laughs> ñu ñu continuer ba tey Charles. waaw Mouhamed ñu jeexalee li nga xam ne yaa ko bëggoon a taal léegi rek ci plateau bi muy Aliou ak Ahmed Aïdara moom nag Aliou Sall daal dina porter plainte ki nga xam ne moo di Ahmed Aïdara. Mhm. pour diffamation ndax Ahmed Aïdara dafa génnoon ne kii lay di Aliou Sall dafa daal di jaay euh, mairie bu Guédiawaye waa Auchan loolu la ko Aliou Sall daal di porter plainte ñu ngi xamal ni que le procès avril prochain. Hmm. te moom jaayul nee moom jaayul. nee na jaayul daal dina koy porter plainte le 2 avril ñu xool nu muy demee rek Mouhamed. mais adjoint maire bi moom. nee na dañuy waxaale fi mu ne nii. dañuy waxaale maire bi. waaw dañuy waxaale. waaw moom de ah. xam nga fi mu instant bi xam nga nan la dañu njëkkantu affaire yu ngi jëm ci jaay te sax bu ma juumalee est-ce que koo jaayee un milliard. mairie bi waaw. waaw dina leer rek moom ñëw na ci pétrole bi pareegul mu ñëw ci mairie Guédiawaye bu yàggee xanaa moom Sénégal lay jaay.